السلام عليكم ورحمة الله إنجلان دي زياربا موكي آه، بالأخ اليوم بالأخ يان جال بولنو جغل سنوي باكار دفني فاك آه، فاك جيني خمني جلين جنو ميتابسكي ين فاك جو باري باري باري تاوخ نونا مولو ني فاك جي من اك تال اك جامو جو سخ اك خيول جو ياتو ياتو ياتو جو باركب سنتو جلوان dañu war a vidéo loolu nag daanaka xam naa vidéo bi moom bootul dañ ci def njambaan lay doon rek njambaan suuf na am lu bare bare bari waaye suñu kàddu nag mooy euh, ziyaare euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général di Mouride Euh, di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di bëgg ci moom mbégte mu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ndax moom day jàpp naa ni bu fekkoon ni Sëriñ Tuubaa daa deseeloon Cheikh Ibra bor Cheikh Ibra da ko lebloon dara mu desee ko mu deseel ko bor mën naa ni Sëriñ Muntaxa fay na ko ba mat sëkk ba deseelu ko dara ba wis ko sax nag far ndax fii mu àgg ak Cheikh moom ñëpp xam nañ fa njabootu sëriñ Basiru euh, ci euh, sopp ak ak cofeel jëme ko Cheikh Ibra mu dala ci seen way jóor euh, sëriñ Mahamadul Bachir ba ci ko fi njëkk wuutu sëriñ Moustapha ak mboolem rakk yépp yëpp yëpp yëpp seen cofeel ci Cheikh moom kenn du ko werante wala nga di ko nattable Euh, turandoo yi nekk ca kër ga rek euh, lan la ci firnde yi waaye jëf yi nga xam ne sëñ Muntaxa def na ko daaw wala daaw jéeg defaat ko ren ñuy wax mu yëkkateeti dëkku Tuubaa dénk ko njabootu Cheikh Ibra ngir ñu saytu ko loolu moom bu fekkoon ne euh, aw xew la dañ naan mooy le clou de l'événement kon Mbàkke dañ koy ñaan mu gën fee yàgg gën fee wér man de daaw jéeg ñaanoon naa sa borom mu wañi samay at bu fekke deson na ci lu tol nona lu mat at euh, yokko ko ci dunduk serigne Muntaxa ren jit yeesalaat nako mu ñaari at kon ba ko jaayantee ba legi ni ba bamuy mat yalla nako yalla nocci ci ci euh, dunduk serigne Muntaxa sama dundu yokkal ko ci dunduk serigne Muntaxa bañ ko bolé ci dunduk nga xamni won moom la ko kon mu mu dundu ko tey di ñaan taalibe bu ne bu ko manee na may waxtu rek taalibe murid bu ne na ñaan waxtu rek fas ko ci xolam kon sëñ Muntaxa kon dana fi yàgg-yàgg goo xam ni eh, kiimaan lay doon ñu bokk ci kiimaan yi suñu borom te it mu ànd ak wér Mbàkke Balla ñu ngi koy ñaanal ñépp di ko ñaanal it njabootu sëñ Tuubaa gi ànd ak moom gépp eh, ci lii mu ne te ñoom it yéene woon ko waaye mu defal leen ko ñu ngi koy ñaanal ñaanal it bu baax nag sunu kilifa euh, euh, nekk ci boppu kër Cheikh Ibra Fall di sëriñ Amdi Fall Moodu Mbenda euh, di nit ku woyof nit ku baax ku am taalibe koo xam ni tànk yi nga xam ne moom la maamam nekkoon ay baayam nekkoon ca ay ñu ko fi jiitu ci ay magam it nekk ca ca tànk yooyu rek la nekk te ku ne xam na ni liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Ibra war loolu kër Sëñ Tuubaa ku ne xam na ni yóbbu na ko foo xam ni eh, xëy na defoon ni munuñ fa àgg mu dellu rek di firndeel ni Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall ak mboole ñi ak ñoom seen lépp day jëm kanam waaye du dellu gannaaw mukk ci àdduna eh, bu loolu jàllee nag may wax rek ci mbirum eh, xew-xew yi nga xam ni dafa xew ci jamono ji euh, maanaam <coughs> waaw ginnaaw loolu nag euh, ma wax rek ci yenn xew-xew yoo xam ni xëy na jaar na fi ñun na saxal ko lool woyefal ko la nakal ko fayda te fekk muy lu diis lu am solo eh, jëm na ci wàllu eh, eh, limaan jooju nga xam ni sëriñ Maam Balla Mbàkke do nañ ko jema bom ci bisu tabaski bi moy acte bo xamni acte bu ñu la nakal ko def lol te muy lu diis lo xamni bu ñu ko saytu taw saytu gi ñu ko war a saytu reen ya dana sori lool ba àgg foo xam ni xëy na yaakaar yaakaare wuñ ko fa ndax euh, euh, acte boobu mu def ak gis jëmu ji euh, doonte dafa àndul la akum xelam it da nga xam ne moom loola ba mu koy def dafa ànd akum xelam ndax ku àndul akum xelam du raisonné raisonnement boo xam ni bu logique la maanaam du raisonné bu taftalu loo xam ne lu lu ko jënne lu yanu maanaam lu jaadu la nga xam bu ko doon nit doon def euh, du ko defee nu nu yées noonu waaw ndax dof moom euh, ay jamono doon du jaage ne am dof yoo xam ne du jaage day nekk toujours mu nekk ko ay dépression surtout rawatina ni moom nañ ko jiiñ bu fekkee dëgg la day am jamono yu muy am ak yu dul am waaye nag xëy na am xelam dana daif dana néew doole ba nga xam nii mënees na ko euh, man day day nekk loo xam ne ñuy wax suggestibilité day boo dañ koy mën a digal maanaam wax ko ne nangam ak nangam buñ ko wanewul def ko directement dañ koy def ci xelam ba mu jàpp kon moom loolu la war a def nga xam ne day mel luñ programmé parce que ab dof du euh, jóge Dakar jënd fa paaka daas ko ñëw sol yéenam ñu rafet ñëw toog ñëpp di julli mu xaar ba euh, ba ñu mu mu ñëw jublu ci kan loolu euh, raisonnement la boo xam ne bu bu logique la te loolu euh, bu fekkee ne euh, doxlaat jamono yi mu koy def moom magaa ko dëkk mu dëkk ñoo nii nag dafa am ñu fa dëkk ñoo xam ni defar fa seeni kër ci buntu kër buntu dëkk ba kër yu rafet waxaat yi ak salafis yi leen financé ah, loolu bu ñu toppee yoon woowu xëy na jombut yaakaar naa du ñàkk bunt mën na saa feeñ te loolu itam concomitamment boo ko seetloo dafa dëppoo ay menaces yoo xam ne dañ ko yëkkati jëmee ko ci eh, xalifa général des mourides mu ndoxa ba mu waral ci bisub tabaski boobee tam ay éléments yoo xam ne dañoo bokk ci eh, nit ñi ngànnaay yi gën a eh, xarala gën a ñaw ñu tàggat leen ci aar doomu adama muy GIGN e, si euh, ñu ñëw escorté ko ci bés tabaski la kon loolu du jëf yoo xam ne jëfi hasard la te yaakaar naa am na alerte yoo xam ne jiitu na loola nit ñi lañ ko bàyyiwul xel ndax euh, euh, Touba Sénégal waaye rawatina Touba cible la boo xam ni ñu koy diir bëgg ko nasaxal bari na lool ay lobby yu bare bare bare bare bari la am na la ci lobby yoo xam ne lobby politique lañ am na ci yoo xam ne mën nañu lobby góor jigéen lañ am na ci lobby franc maçon waaye man jàpp naa ne lobby yi ci gën a mag mooy lobby yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal te muy lobby wahabi yi wala ñu leen di wooye bokk salafis dégg naa sax ñu leen di wooye ibaadu waaye bokkuñu ak ibaadu loolu lañ ko def pour waayefal seen mbir bokkuñu ak ibaadu ay wahabi yu lañ wala ay salafis nekk tubaab yooyee ak Sénégal partout au Sénégal te ñoo nekk it ci dëkk boobu moo doon wax noonu eh, xaw ma nan siin dañ doon jéem a boome imam boobu parti Sénégal ñoo fa nekk eh, Touba googu ña ngi fay nekk yor fa ay daara di gën a bari nag rek di gën a bari mbooloo mooy gën a bari ñu seetaan leen ñu ñu fay jàngale njàng moo xam ni eh, bu ñu ko mokkalee ba génn yaakaar naa ni ak coppiku dina am ci dëkk ba ndax dañ fay dëkk bokku fa kenn leen fa mën a génnee ah da la ñuy def ci seen bopp ak la ñuy def seen xel dana wuute lool ak njàngaleem Sëriñ Tuubaa ma jàpp ne nag jot na képp koo xam ne dafa ñëwati Tuubaa di fa ubbi daara ak koo mën a doon la ba xam xeetu njàngale ba nga xam ne yaa koy jàngale Tuubaa bu ñu ko seetloo ba mu doy leen ñu wutal la autorisation bu ñu la wutal autorisation boo xam ni euh, autorité yi Tuubaa ñoo la ko jox du teet xëy na nguur gi saytu la war laa mën a wutal beneen beneen autorisation tey am ñoo xam ne dañuy continuer di saytu njàngale yi nga xam ne moom lañ jàngale ci dëkk ba waxtu woo ci gisee koo xam ne ma ngay jàngale lu dëppoo wut ak euh, njàngalem majalis mi nga xam ni moom lañuy jàngaleetu waa di ko jàngale ci kër yi diine yi nekk Sénégal yépp bu boobaa ñu nangu sa yi tam interdit sa daara génneel dëkk ba te sensibiliser parents yi xamal leen te bala ñoo dugal seen doom ci daara nañ xool saytu ba xam daara ja jan daara ja te périodiquement ñuy saytu it ñuy nattu seen doom di leen laaj wala ñuy waxtaan ak ñoom ci mbirum sëñ Tuubaa ba xam buñ ca toll. waaw loolu daal yaakaar naa euh, yoo xam ni lu jara euh, la man nag yàgg ma wax ak alerté ci lu jëm noonu ñu di ko waaye de plus en plus nit ñaa ngi gis nii eh, ñooñee ñu doon. Euh, Euh, tàmbale woon di ko leen di leen di sol ci ñoom euh, euh, xelu mbañeel mbañum sëñ Tuubaa ak mbañu lépp loo xam ne yoonu te tasawuf la wala yoonu suufi yaakaar naa ñooñee mm, màgg nag ñu ngi tàmbalee di wane seen bopp te bari luy xew Tuubaa loo xam ni dañ naan xaadim diw moodu diw fàllu diw nangam nangam te fekk ñooñee lañ bokk te loolu daaw xew ab dëkk nag bu fa lëf dee xew loo xam ne musu faa xew nañu seetluwaat kan mm, ña ndax ñi ko dëkkoon ñu xam leen ràññee leen yaakaar naa lépp luy soppi doxalin dëkk ba du doon luy jóge ci ñoom kon nañu saytuwaat bu baax a baax eh, daara yi nekk Tuubaa ak lañ fay jàngale ak ak jàkka ya xutba yañ fay def ak commerçant yi ci bopp seen bopp aussi ñan la ñuy financé fan la ñuy yóbbu seen doom ban na jàkk yu fa nekk yoo xam ni eh, maanaam dañu koy def defin woo xam ni dañu defe ne ay dof la ñuy waxal waaye yàq dong leen tax jóg len ni yàlla ñoru leen parce que ay politiciens lañ wala ñu doon ay sayatin yoo xam ni yàq dong leen tax jóg di ay waxee bi wala ñu ay salafis am na si ñoo xam ni sax mën na am ci imaam yooyaag jàngalekat yooyaag sëriñ daara yaag ñeneen ñaag ñeneen mën nañoo am ñu ci doon ñu jege ñoo xam ni xëy na eh, seenu cër ci yoon yi xëy na dana neexut yoo xolub kañaan nekk ci ñoom walla ñu dem jàngi bitim réew fu ne ñu dem fa njàng ma euh, euh, antuwut ñu jóge fa euh, dem dressé seen boor boos fu ne ci Afrique dëkk bu ne ñu Afrique bu ne ñu dem fa di fa moodu moodoo ko jaay ah, ñu dem ba xam ne loolu doxut ñu xelal leen ne leen kat eh, seen maam walla boog ki ni mooy seen maam moom lañ leen di maamale li mu amoo moo ëpp lii ñu door la ñëw nag ba gunóor rey gi wax dañu indi loo yoo xam ni ñun intéressé wuñu parce que ay mag lañ ay mag lañ ndax ñooñu ay yoo ñoom ñëpp seen i way jur ñu ñoo fi nekkoon ak ñoom man leen cee net lu bari xam ni danañ dégg sax léeg-léeg wax ci loo xam ni lu weddi seen i baay seen maam lay doon ñu xam ko donc ñun ñooñu mënuñu noo impressionné mënuñu noo impressionné te man defe naa ni képp koo xam ne dara di Serigne Touba ngi daw ci sa yaram. ni ma ko waxee léegi ci njabootu sëñ Muntaxa gi sëñ Basiiru Mbakke gi ah ci njabootu eh, sëñ Tuubaa gépp sax mën naa ko wax sëñ Fàllu sëñ Moodu Mustafaa ñëpp mën naa ko wax kenn koo xam ne wóor na leen dara di sëñ Tuubaa daw ci ay ay ay ay sidiitam du diingat Cheikh Ibra du noonu Cheikh Ibra mukk ci àdduna képp koo gis muy wax muy muy wax wala muy jëfee wala muy doxalee doxalin woo xam ni eh, dafa mel ne kuy noonu Baay Faal na leen na leen jàpp leen ni bokkul ci njabootu Cheikh donte dañ ko cee askanaleet ndax askanale ci fu mu moom loolu yàgg na ndax waaye sëriñ Sëriñ Tuubaa moom du noonu Cheikh Ibra mukk bu dara Sëriñ Tuubaa di daw Cheikh du noonu du noonu Cheikh Ibra mukk du noonu njabootu Cheikh Ibra du diingat Baay Faal képp ku ngeen gis di ko def wala muy lu ko niru jàpp leen ni dañ ko caa boolee euh, ci waaye bokku ca parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk màgg fi yaroo fi xam lépp nag lañ xam waaw képp ko am daal sëñ Tuubaa dara di sëñ Tuubaa def si yaram doon noonu mukk Cheikh Ibra te loolu feeñ na ci jëmmi sëñ Mouhamadou Mountakha mii feeñ na sëñ sëñ Fall bi nga xam ne tuddee na Cheikh Ibra Fall doom tuddee way juur Cheikh Ibra Fall doom sëñ Baara Mbàkke mi nga xam ne tuddee na Cheikh euh, Ibra Fall yaayi doom tuddee doomam bu jigéen sax Cheikh Ibra ak sëñ Modou Moustapha fi mu tegoon Cheikh Ibra sëriñ Saliou n'en parlons pas sëriñ Soy moom am naa ci firnde ndax man dem naa fa ànd ak sama yaay mu am wax ju mu wax joo xam ne da ko jëmale ci sama baay sëñ sëñ Aliou kon euh, nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ñun moom man moom boo foo man di jànge yaa xam université bu la neex jàngee fa dégg nga boo ñëwee fii ci Sénégal gii man bu ma la jàngalul ak taalibi naa la ko jàngal eh, boo ma ko bu ma la ko jàngalut yow doo ko jàngal te nag murit moom li ko war am moom solo mooy jàngum taalibe ndax xam-xam euh, tasawuf ak euh, Euh, euh, fiq ak xeet yu mel tawhid ak xeet yu mel noonu moom fii nii ñu nekk ci Sénégal yaakaar naa ko fi raw euh, ñi fi ne jànge fi amut waaw ñi fi jàngee kër sëriñ Daaru Maarif sëriñ As Jaxate sama nijaay wala ñu jàngee kër sëñ Habibu man ko sëñ Habibu jànge naa fa aussi wala kër sëñ Jatara wala kër sëñ Moustapha Mbay yaakaar naa ne foofa ñoo fa génne lépp lu dugg ci fiq xam-xamu di loomu diini yaakaar naa amut lan luñ cay euh, euh, jëggaan yi na ci àdduna ku génn di jàngit xëy na leneen ngay jàngi mais du xam-xamu loomu diin kon bu fi kenn ñëw dañu bëgg a rey ak yi wax ay xam-xamu lii wala lii wala laa wala laa bu dee taalibe nag moom man ñii moom mën naa ni moom docteur docteur laa ci kan gënuma xamuk taalibe ndax dama dund ki mag di mag dund ki mag lu ma ci manqué wala defuma ko sama mat rek bopp la wala sama wala sama mën bopp waaye du lu ma xamut ak taalibi kon Touba gi lañu koy jàngee kenn du ko jàngee Égypte kenn du ko jàngee Caire kenn du ko jàngee Iran ko jàngee Koweït du ko jàngee Qatar kenn ko jàngee ci benn réew ak taalibi Touba lañ koy jàngee ci Sénégal waaw kon nañu delloo ci waat xel yi bu baax a baax a baax a baax delloo ci waat xel yi xam eh, naa li ma nosoon wax sax eh, am na ci loo xam ne eh, dafa xaw a génn ci sama xel te it bañ vidéo bi gudd waaye li may daaneel rek mooy euh, benn waay joo xam ne damaa gis euh, mu photo wala mu euh, def vidéo ak waaye joo xam ni dada maanaam ñëpp ràññee nañ ko xam ci saaga wax yëkkati wax ñaaw di ko jëmale sëñ Mouhamadou Mountakha mu photo woog moom di ko sant di ko sargal ba yëkkati ab terrain naan terrain Touba ne Lac Rose ne da koy jox muy jëf ji ñaaw joo xam ni wax dëgg yàlla kooku man fekk xaw ma mooy kan wala xam ay intention am du ma ko jàppe loolu noonu Sëriñ Tuubaa la koy jàppe te bu fekkee ne taalibe Sëriñ Tuubaa la ku gàtt ku gàtt xel la koo xam ni xëy na yéen a ja na ndax ko yëkkati attan na yëkkati ab taara di ko jox xëy na sa yéen a waaye ku gàtt xel la ndax loolu de boo ko defee bu soobee yàlla bu subaa téeméeri junni yu mel ne kookee dañ tàmm di ko saaga bu fekkee ne kenn ku ne mën laa jox terrain ngir nga noppi eh, kon bisimilah baax na ñun saaga yi mu koy saaga eh, dëgg gi déranger nañu na am waaye yàqaluñu dara ndax day gëna renforcer suñu bëgg-bëgg Serigne Touba ay daal defena ni képp ko xamni jakarlo nga ngaa kuy xass Serigne bi wala mu di wax saga wala mu yëkëti yeen wax ji diko wax yakarna bo jakarlo ak mom sam xel warna dem ci lenn ci jëflanté mom warna don naa doon lenn leneen lu dul ay tànn diko ko neexal mel ne eh, eh, da def defu lol dal rafet lu moko euh ñaawlu nako bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa ah, di gëna Ehm, santaat bu baax rek di gën a ñaax taalibe yi ñu gën a farlu ndax li leen di féréw li dafa bari lool waaw rawatin nag li jëm ci politique waaw politique moom dem na ba egg foo xam ne yàq na euh, lu bare bare bare bare Sénégal ndax euh, ñu bari dañoo demee ne fi loolu dañoo yeewu te yeewuñu wax dëgg yàlla yeewuñu maanaam koo xam ni mi ngi ci digg xàndoor boo ko waxee sax mun na yeewu naa ñu leen di nax leen manipuler Eh, loolu wax dëgg yàlla war nañ see bàyyi wat xel bu baax a baax a baax di gën fedd ni nag eh, sama cant ak sama taalibe rek ci sëriñ Mouhamadou Mountakha ndax eh, yëkkati gi mu yëkkati li aju ci wormay Tuubaa dénk ko njabootu Cheikh Ibra Fall teg ko ci loxob sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda ah, ñoom ñi nga xam ne ñoom la seqal ñëpp waaw sëriñ Assane sëriñ Euh, sëriñ jiital sëriñ mm, Cheikh Ndiaye Mbengue nga xam ne mooy jëwriñam njabootu mboolem njabootu sëti eh, këri Cheikh Ibrahima yëpp waaw fukki këri Cheikh Ibrahima yeeg yëpp ñu dugal leen ci biir ah ki nga xam ne moo koy coordonné nekk di ab porte parole di sëñ Dame ah loolu ba tey euh, c'est un c'est une preuve supplémentaire ah, de l'estime et de la confiance que Cheikh Modou Mountakha place en la famille de Cheikh Ibrahima te man rafet naa njort ni duñ ko décevoir mukk ci àdduna duñ ko décevoir mukk waaw na ñëpp xam ni daal lépp loo xam ni luy xotti waru may Tuubaa wala muy nasaxal ndigal wala kilifteef wala muy ñaawal deru dëkk ba loole incha allahu taala fas naa yéene ñaan naa boog ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko seq ñu dugal ko boole ko ci la nga xam ni moom la leen suñ mun taxaa digal ndax buñ la buñ la santee def loola moom xëy na am na lu mu wax ci aw làmmiñam waaye la nekk ca xol ba weesu na loolu te du lii la njëkk def ndax woo na fi président de la République a Sall ah modestement day man xam naa ne woote boobe day néew du ma ne maa ko waral waaye xam naa ci la tax mu am ci laa bokk waaye nañ ko waroon a doxale doxaluñ ko parce que ay nit dañ caa dugal seen intérêt bopp torpiller ko boole ca loo xam ne sëñ sëñ bi boolewu ca ndax intéressé wu leen waaw jigéen bi Euh, dañ koy wormaal jigéen dañ ko wormaal xotti so suray jigéen euh, su wu ñu awray jigéen man yaakaar naa fekk jigéen ju dem muuru nga muuri ko moo gën a ñaaw bu fekkoon ne jigéen ji dafa def mees ci kanamam donc yooyu yëpp sëñ Muntaxa man je mën naa waat ci barke Cheikh Ibra Fall sëñ Muntaxa sëñ kenn ku mës a toog fii boole ca loolu ndax xamuñu ko kon jigéen ji dañ leen di wormaal la ma yaakaar ne moom lañ ca war a boole daal mooy col gu yiw col gu yiw koo gis dana ko xam li nga xam ne moo aju ci wàllu jigéen waaw loolu daal man laa jàpp nii bu ñu ma déggalee noonu la ñu doxale waaye ku tuuti laa nag ñàkk solo lool euh, sama yéen rek laa mën a feeñal ak li ma xamagus néew ak sama expérience loolu rek laa mën a fësal waaye li ci des moom dañ mm, koy bàyyi rek ci loxo yi ñi nga xam ñoo ko yor maa ngi leen nuyu baax leen ziar euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh